والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه وخديمه ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته di balu ak ñëpp di ak ngëneelam ak barke barab bu tedd bi nu nekk ak bés bu màgg bi nu nekk mu jéggal nu ñépp liñ séq ak moom te defewuñ ko nam dox suñ diggante itam ñun ci suñu bopp lan séq te defuñ ko namu bare ñu mën caam ay toppaangi mu faruñu ca ba lépp rafet loolu yomb na ko yàlla na ko def bi barakati Cheikhina Ahmadul Xadim waxtaanu tey wi nag ab tomb la boo xam ne dañu jàpp ne lu mat di fàttali la ci jamono yu nekk ci weer wu nekk ci bés bu ne ci waxtu wu nekk sax muy borom bi tabaraka wa lan moo tax mu bind nu indi ni fii ci àdduna nun ak jinne yi ak bi nu fi indee ba noppi wax nu lim nu fi indee su ëllëgee lan lay jëfanteeg nun gannaaw bu nu dekkee masuliyatul jinni wal ins ala al wa mawaahum almurtaqab baad albaas loolu waxtu wu nekk dañ ko war di fàttaliku ndax fàtte ca dara rek lam nu jural yal na nu ci yàlla musal borom bi tabaraka wa taala ba muy borom bi wa huwa qadimu maa lahu bidaaya wa du baqaa in maa lahu nihaaya nekkam ga day nekk goo xam ne gu wér la waaye nekk gu gu amul ab tàmbalikaay des ga itam amul fu mu yem lu dut mo lu dut jëmam ji nag da ko moo ko bind kaay moo ko ci kaayinaat yi waaye buñ ca lim lañu mën a xam muy malaayika yi ak jinné ak xayawaan ak gàncax ak jamaadaat juróom yii moom la borom bi bind ñuy ay kaayinaat xayawaan moom nag mu séddale ko ñaar xayawaan saamit ak xayawaan naatiq xayawaan saamit mooy bàyyi ma xayawaan naatiq mooy doom aadama yi mu mel ni nag malaayika yi ñoom jàppoon nañ ne ñooy ñafare kaw ñu dul ñoom ba loolu lañ jàpp mu def doomu aadama yi nag def ci ñoom xel ak xëriisa xel mooy loo xam ne mën naa tànn xam la ko gënal xam la ko gënalul xam la baax ci moom xam la gën baaxul ci moom mu def ko ci doomu aadama bàyyi muy nag mu defal leen xëriisa xëriisa mooy loo xam ne seen bànneex képp la ñuy jiital waaye xamuñ la baax ci ñoom xamuñ la bon ci ñoom gàncax moom nekkul foofu jamaadaat nekkul foofu waaye borom bi moo waxal boppam wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun ma uridu minhum min risq wa ma uridu an yutimoon inna allah huwa razaq dul quwati almatin kon li tax yàlla bindu nu teg ci suuf sii du yaari yëf du yetti yëf du yéenti yëf benn rekk mooy nu jaamu ko te jaamu ko ñu wéetal ko ci ndax am na ñuy jaamu te jaamaga du jaamaga du leen jëriñ ndax dañ ko dañ ko bokkaale dañ ko bokkaale keneen dañ ko bokkaale leneen dañ ko bokkaale jeneen kon jaamu ki balaa am njëriñ da nga koy wéetal moom dox ko moom dong waaye borom bi jinne yooyi ak di doomu aadama yooyi koo ci xam ne def nga lii la sa borom digal muy ñu jaamu ko di ko wéetal ci àdduna ji bés boo xamee rob nañ la booy dekki saba aljana nga jëm biir bàmmeel bi sax danga fay gis ci xéewal ak i naataange ak noflaay loo xam ne danga xeeb la nga doon def ci àdduna ndax lii moo la nga doon def ci lii moo la ko yóbbee moo la ko jural loolu moo tax na Ahmadul Xadim di wax ne képp ku ñu rob ci bàmmeel buñ ko fëggee ne ko loo gën a bëgg mu ne dellu àdduna ba jaajuwaat ndax bu dee ab julit dana gis ci bàmmeel loo xam ne bakkan musu koo foytu nopp musu koo dégg bët musu koo gis xel musu koo xalaat ci ay xéewal te loolee lam doon def ci topp ndigal bàyyi tere moo ko ko su dee koo xam ne safaan dana gis ci bàmmeel ci ay metit ak i naqar mbugal loo xam ne bu laajee ñu ne la nga doon def ci àdduna bañ a topp ndigal di def ay tere moo la ko yóbbee kon ñoom ñaar ku ci ne dellu àdduna kii yokk lam doon def ci lu baax kii tuub lu lam doon def te dugaat ak baax wa argabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya ma alxayaati walaw suwayatan faqad li yaamalu saalihatan tanfaahum in xafalu kon képp koo xam ne yaa ngi ci àdduna di jaamu sa borom jaamu gawar di ko wéetal di sellal booy faatu tabbi aljanna ja nga xam ne moo gën a kawe waaye am na ñoo xam ne ci jinne yi ak nit doomu aadama yi nekkuñ foofu ñooñu moo tax borom bi tëkku leen wa laqad daranaa li jahannama kasiran min al jinni wal insi lahum qulubun laa yafqahuuna biha wa lahum ayunun laa yubsiruuna biha wa lahum aazaanun laa yasma'uuna biha ulaa'ika kal an'aami bal hum adal ulaa'ika humul gaafiluun sunu borom nee na bind naa lu bari ci jinne yi ak nit ñi jox naa leen ay nopp yoo xam ne duñ ca dégg liñ war a dégg jox naa leen bët yoo xam ne duñ ca xool lañu war a xool bindal naa leen xool boo xam ne duñ ca xalaat lañu war a xalaat muy gëm gëm gu sel di xool samay kiimaan di déglu samay waare defuñ ca leen ñooñu nag matam safara la ñuy doon ndax ñoom dañoo réer ñoom dañoo sànk ñoom dañoo sàggan kon fexe ba sunu borom lool yi nga xam ne da koo leeral te demaguñ fenn kenn ku ne seet la nga xam ne moo lay musal ca tëkku ya seet la nga xam ne moo lay may la nga xam ne mooy ay dële am na loo xam ni ñëpp la ko boole muy ñu jaamu ko jaamu gu wér te duñ ko bokkaale kenn waaye nag mu am loo xam ñoo xam ne daf leen a xaasal ne ñoom dafa am warugar woo xam ne bokkuñ ko ak ñi ca des mooy ñi nga xam ne dañ leen tuddee ay jàngkat du ma wax ay boroomi xam-xam du ma wax alim waaye ay jàngkat ndax ndax xam-xam borom xam-xam moom dafa am lu lu ci Seexuna amadou Xaadim wax loo xam ne bu ca nekkee kooka la ñuy tuddee borom xam-xam su ca nekku deesu ko ko tuddee inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna al funuun kon buñu xamé ne borom bi li tax mu indi ñu ci aduna ji mo ñu jaamu ko jaamu gu sel go xam dara ci bokkaale du ci dugg loli buñu ko défé buñu démé yawmal qiyamati ba'd al ba's lam wax lu leer la fa amma man tagha wa al hayat ad dunya fa in al jahim hiya al mawa wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha annafsa an ilhawa fa innal jannata hiya al mawa kon kenn ku ne kër ga nga jëm mën nga ko xam fii nga xam ne yaa ngi ci adduna ko koo xam ne danga jiita sa bakkan di di bew di def ay tooñaange di xuus ci sa bakkan lu la sa bakkan la sant nga def ko teg fii ndigali yàlla yi boo faatoo jahi mooy sa kër jahi mooy sa kër zaqo mooy saw ñam حمي mooy sag واما من خاف ربه واما rabbihi خاف مقام ربه ونهى النفس rabbihi الهوى فان الجنه هي الماوى كيغا خامي بيم نيكي سي ادونا دا mawa جيل بوروم تك سي كانامم خامني بيسغي ci بو خامني jël boromam teg ci kanamam xam ne bés lu yàlla lépp di déglu di la ngay waxanteeg sa borom baat ak tontu lay doon amul weddi loolu ku ko teg ci sa kanam da nga gor ci def ay ndigal da nga gor wax ci baye ay tere mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam daana firi inna lasina kafaru inna lasina amanu ci suratul lam yakuni waye day wax ne sharrul baria ak khairul baria sharrul baria moy ñi nga xamne kafaro wa ashraku nalasina kafaro min ahli kitab wal musrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada أو خالدين فيها أولئك هم شر البرية الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية daal di wax la leen seen borom defal ci pay xéewal goo xam ne kenn mësu koo gis waaye la xéewal gay neex neex ba ridwaanu lay ñëwee dañuy fàtte al neexitu aljanna wañ nekk dañ koy fàtte ngir ngërëmul yàlla moo gën a neex aljanna waaye bu daa firi day wax ne xayrul bariya moy ñi nga xamni ci aduna ji ay bindef lañ jàpp ne malaika yi ñoo ci seen kaw bàyyi may ne ci seen suuf way abu hurayta bu ko daan fi day wax ne istadal ala hati al aya ala tafdil al muminin min al bariya ala al malaika malaika yi la yaasuuna allaha ma amarhum wa yafaluuna ma yumarun lol dañ leena moñale lolou loolu day mel ni ndam neeku ci waaye boo bindeef yi nga xamee dañ leen a defal bànneex jox leenoom xel ñu am xurriyatul ixtiyaar ñu dem a dem ba fépp seen borom tëdd ne fi rëdd ne fii bu ko kenn jaar duñ ko jege lépp lu seen borom rëdd ne def leen ko ñu def ko nam ko bëggee ñooñu dañuy dem ba kawe malaayika yi abu xurayra ak lëf ci ulama yi ñoo ko wax istadalloo ala xayril bariya ala tafdilil muminin min al bariya ala al malaayika waye nak dañuy dañuy dem ci Seexuna Ahmadul khadim radiyallahu anhu mi nga xamne moy mooy sun royteef sun digal musaba sallallahu alayhi wa sallam di sun sun sun tukay diggante ak sunu borom bam beugé mucc ci yi yeb dafa am fu mu jëm te fofu kep ko xamne jëmo fa da nga yàq sa l'islam da nga yàq sa talibé da nga yàq sa ngor yadili muxdin karimin naafi'in samadin لا للدراهم تاتي من سليطين من سما لوخو بي جوم ناكو تالال دوم ادم دي وود اي درم اي بن بن درم ساكا دي كولاج اسمور لولو جوم ناكو مد يدي لغير الجلال عندي من الضلال والاضلال تالا سما لوخو سونو بروم اك سانكولا اك سانكيلا وان سددوني يوسف من بويبه فحسبي باب الله بابا ومولجا nañ bàyyi xel ki li sëriñ bi wax wa in saddaduuni du xutaamin borom po itam àdduna bu ñikkee tëj tëj as mbuntam sama digg ak moom tëj as mbuntam bu way ba as mbuntam sama digg ak moom fa xasbiya baabullahi man buntam yàlla doy na ma te doyloo naa ko doy na ma bunt doy na ma ab dugukaay فإن صدقوني ذو حطام بويبه فحسبي باب الله بابا ومولجا sëriñ bi foofu la nekk te képp koo xam ne nekkoo foofii man nga man nga ne ci àdduna ji wax ko dem ak ñëw waaye jàppal na sa lislaam dem na bu yàgg sa taalibe dem na bu yàgg sa ngor dem na bu yàgg borom xam-xam yi gannaaw bu sunu bam digalee ñëpp ñu jaamu ko te ko ñoom dafa am lu mu leen ci cëral wa ya ulama ashaabi li diine antumu masaabihu la istanaara biha sublu waqad aqada allahu al-uhuda alaykum bi idahikum bi shar'i ma jannahu jahlu ñi nga xam dañ leen tuddee boromi xam-xam wala ay jàngkat dafa am lu sunu bam gàll ci seen loos loolee mooy di leeral nit ñi li nga xam ne moo yoon ñu war a jaar ba mën a mucc tey mën a mucc ëllëg ama lakum moo fii man waristu min uswatin laqad jàlla ma laaqa wa kaabadahu xanaa xanaa xamu leen ne yéen ñi jàngkat yéenay ku ay wal iyaasu billah wa man yarda min duniyaahu والدين منصبا ومالا ومالا فلا تنفس عليه isa yàllu koo xam ne addunaam ji ak diineem ji ak ngorom gi mën na ko samp ngir poñetam adduna kooki bul ko ñee bul ko ñee mukk mukk mukk ci adduna xamande ak mujjam du baax tey wala baaxee tey du baax ëllëg fa firroo ila llahi al-azizi fama lakum ida lam tafirroo minhu manjan wala waalu nañ daw ñun ñëpp daw leen yéen ñëpp ñu daw ñun ñëpp jëm ci sunu borom mi nga xam ne mooy buur bu tedd bi mooy buur bi nga xam ne moo am kàttan du ko not te moo fi nekk tey te moo fi nekk ëllëg nañ daw jëm ci moom suñ dawul jëm ci moom nañ xam ne amuñu ab jëmukaay bu ñu mën a muccee amuñu wéerukaay bu ñu mën a wéeru falaw kaana ma bi diini bil maali naasiran لحى ما بجد دونه الخير والخيل والرجل وغامر من يحمي الضمار لحفظه ويا مهل أولاد شرف القتل على الطين حظ ليس في الشر أسوة ولم يجد عند الله تقليد من دلو لي خوتي ديني نيب تك سين بت نيب تك سين بت كي بودالو ايكونوميك بودالو تي خايب نيب واخ نيب جوك waaye mu dal ci kaw diine ji ñëpp ne cel wala ñiy wax amuñu am dañuy wax lañu am amuñu baat ñi am baat am kattan dañu ne cel kon kon kon kon wal iyaasu billahi taala wal iyaasu bi taala sëriñ tubaa moom fi mu jaar leer na te képp koo xam ne ba ngaa mucc mooy da ngay jéem a jaar fi mu jaar nasraan bi te nasru moom nga génn ci tekku sa loxo tubaab yi nga nga génn seen mboor bañ bay bañ leen a loy sëriñ bi wax na ne barra anillahu min at tanasuri barra anillahu min at-tanassuri walaw tanassartu la daxaltu naar ma ngay sant yàlla mi nga xam ne moo ko musal ci ak tubaabu ndax moom sax nee ne bu tubaabu woon roy tubaab yi day dem safara tubaab ay bindeef lañ làkku tubaab làkku séréer làkku saraxul yépp bine borom beneen bindi waaye ak tubaabu mooy li bon barra anillahu min at-tanassuri wan qaada lil islaamu daa tabassuri برأني الله من التنصر وقاد لي إليه بالتبصر برأني القدوس من تنصر وجاد للوهاب بتبصر برأني الله من من برأني القدوس من تنصر ومن تحود فتاب أسري ak أكبر تباب bëgg tubaab sëñ tubaab nee بس day yàq pas-pas day yàq lislaam day yàq kon moom foofu la nekkoon képp ko xam ne ab julin nga waxuma ku di murit na nga xam ne sëñ bi foofu la nekkoon wala yaasu billahi taala waaye dañ daw bu baax a baax a baax ñooñu muy wax ne wa minhumoo man in raa nasraani yaxsibhu min malaika rahmaani ragal tubaab ba boo gisee ab tubaab jafe ne malaayika nga gis bu tubaab tisee nga ne yarhamukallah loolu sëñ tubaab nekkutoon foofu ñi koy roñ nekkuñu foofu kon bu ñu nax suñu bopp tey bu ñu nax suñu bopp ëllëg sëriñ bi fi mu doon jaar leer na naññ naññ naññ nañ wa man yarda min duniyaahu wa diini mansiban wa maalan fala tanfas fala tanfas alay isaa yàllu koo xam ne diineem ji lam cay xërti xërti lépp wut alal wut palaas la addunaam jaay na ko ngir jënd palaas ngir jënd alal kooka bul ko ñee bul ko ñee mukk mukk mukk sunu borom wax na lépp Moustapha sallallahu taala wax na lépp Cheikhuna Ahmadul Khadim wax na lépp kon kon li ci des lépp ci noonu la nan góor lu ba fi nga xam ne fi lan war a jaar ba yaakaar danañ mucc tey danañ mucc ëllëg ñu di fa jaar te bu ñu dara dara dara jaral jaral jaay sunu ngor bu ñu dara jaral jaay sunu lislaam bu ñu dara jaral jaay sunu taalibe ndax loo ci jaay adduna ji da nga ko fi bàyyi bés bañ lay suul juróom-ñaari mètre percal képp ngay àndal te xamoo looy fekki waaye buñ sàmmee njàngaleem sëriñ bi xeeñtu mbooram lin bëgg tey dana na ko am ci ànd ak ab bu ëllëgee lan yaakaar danañ ko fa fekk kon yàlla nu yàlla dimbale te defal nu tawfiq te bàyyil nu fi sunu kilifa gi nga xam ne day xaabaabal ci ay jëf waaye day économie si ci ay wax du xaabaabal ci ay jëf ci lislaam waaye day économie si ci ay wax néew na nga dégg ci laami ñëpp ay waxam wala bu waxee rek lu defar ak bokk lu fonk lu dëkk bi lu fonk lu lislaam ji lu fonk lu bokk gi lalool ca lay wax kon royiteef waagu noonu yàlla sunu borom boole dimbale ndimbal loo xam ne dana dana buñ ca nekkee mooy nekk ci ndigal yi ni ko borom bi bëggee wéetal ko tey bañ koo bokkaale te bu ñu dara jaral jaral jaral poñatam àdduna ñu yaay sunu ngor mbaa sunu lislaam mbaa sunu taalibe doy na sëkk ci baytu boobu ñu mu jawax fa in saddaduuni du xutaamin buwaybahu fa xasbiya baabullahi baaban wa mawlaja su fekkee borom poñitam adduna ma moo ma bëgg a ger bëgg maa xiir bëgg a tëj sama as mbuntam sama jég ak moom suur naa ko suur naa ko suur naa ko doy na ma sëkk buntub yàlla bi nga xam ne baabullahi lam yàkku murtaja kon nañu góorgóorlu bu baax a baax yàlla na soo moom defal tawfiq ci barke ci dara jaam والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته